seytaane rajiim gannaaw ba ñu sante yàlla dugg ci sang-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi di leen sant yéen seen mbokku internet yi di jéggalandoo gis ngeen ni ñu ñëwee daaw woon ñëwee nii waaye mbir dafa xew te bu mbir xewee nu mu la fekkee rek moom ngay génne donc ma nekk fii ci Dalifort ci kër ñoom Kaliphone Sall nekk ak famille Kaliphone Sall yëpp macha allah ñu am ay réaction yu ñu réagir ndax yéen ñii suñuy camarades yéen ñii nga xam ne yéen férovois yi yéen ñi yéen xamante ni yéen suñuy xarit bi suñu am di jàmm bi ñu seetaan saa su ne xam ngeen ne am na lu xew muy lu metti muy mbir bu kiis waaye jàmm tamit day nangu dogal waaye bu tee tamit bu mbir amee faaw ñu waxtaani ko ndax yëg ngeen ne bi problème bi amee ba tey gisuñu benn mbokku Khalifa Sall bu génn mu wax parce que jàpp nañ ne juste sunum réew am na comme te def nañ ñi nga xamante ne mooy test dem ci kër docteur doon xaar résultat génn ba résultat génne sant Maolana Tabaraka yàlla setal Kaliphone Sall ci lépp nag am tey nag lu xew lan moo xew mooy Kaliphone Sall def nañ ko sur laa de dépôt ay famille nag bëgg a réagir tungane du teew ñuy nataal balaa ñoo wax dara ma bàyyi seen taawu kër mii duru gi mu ñëw présente wu di ko mii di seen taawu kër mu ñëw présente wu am lu mu wax te képp koo xam ne mën na cee wax dina ci wax te macha allah ñoom ñëpp ñu ngi nii toog xam naa ne ñoom ñëpp ñu leen mën a joxandoo waaye tamit ñu ngi sant dëkkandoo yi di sant am di jàmm yi parce que nii rek la ñu mën a bokkam kon boog ñu bàyyi suñu yaay suñu maman Rugi mu ñëw di suñu maman Dikko mu ñëw mu mën koo poser ay question mu mën a répondre maman Dikko joor mu waaw kii mooy maman ko Sall di taawu kër gi maman Dikko mi sabini moom juri moom boo bëggee ñu wax olof wala ñu wax pulaar donc xam naa ne olof bi aussi dina baax mais mm-hmm. aussi tamit pulaar bi duñ ko mën a ñàkk parce que am na ñu bëri ñu ngi naan volume volume mm-hmm. donc volume bi la ñuy laaj mm-hmm. donc je pense que volume bi baax na bu baaxee ngeen ngeen ne ma waaw Maman ko tey ñu gis mbir dal ci seen kam ma leen di laaj mbir bi ñu ñëwee ni ngeen ko gisee ak ni ngeen ko jàngate ak noo leen ci am kàddu yoo ci mën a sànni bisimilah ñu ngi seetaan di jëm bisimilah maa ngi jëm ñoo ngi sant yàlla bu baax di jëm si yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam waaw xam naa daal suñu xol koy na daal mënuñu si sore ndax nag bu nu mu mel bu ñu sax di wax waaye taalim cigare bi mu juddoo ba léegi mosu ko sax mosul naan sàngara mosul nekk bandi xamawuñ ko dalifoor a ngi fii ba dalifoor daj dañu def seen yooyu ñuy laajte ñoo dugg si biir dëkk bi sërëfët si xale ñoo ngi koy ñaanal yàlla nag lii mu dugg xëy na dafa gën ci moom ndax kat euh, ni dugg na fi kaso fekk kenn yëgu ko waaye boo gisee mu siiw ni fàccee ah am na lu ko yàlla may am na ko bu baax a baax ñun nag di déglu si suñu njiit suñu njiit mooy ñi koy àtte xale bu jigéen bi ñëpp xam nañu ni mu demee jaratu léegi nit ñi si toppal sax di wax lépp leer gannaaw ay këyit la woon ay këyit ñëw na xale bu jigéen bi naan waa kii waa gendarmerie dañoo dem ne xale docteur loolu yëpp wax nañu kaay bi xamul docteur xamaanul docteur xamul gendarmerie xamaanul gendarmerie dañu kon tey rek na ñëw volume volume dañoo kon tey na ñëw bu ñëwee mu daal di ñu tiire seen plainte xale bu jigéen bi daal di toog ñëwul ni dafa feebar moomu daal di ñëw njàmbaaram a tax mu ñëw waaw bu dul woon njàmbaaram bu dul woon njàmbaaram bu ñëw kon day tëdd moom tamit dafa feebar ndax li daal xale bu jigéen bi rek moo ko dal waaye nag ñun ñoo sant yàlla bu baax ñoo ngi sant yàlla ma bàyyi xale yi wax ndax daal mënuma si sore jërë nga jëf euh, maman di ko donc dégg ngeen suñu yaay ji li mu wax donc dafa am keneen ku ma bëgg indi kooku nag sama toomaa la muy maman Faty Ndiaye maman maa ngi leen di nuyu maa ngi lay fay sant yàlla baax jundi ci yonent sallallahu alayhi wa barakaatu li may wax Sénégal laay ban Sénégal lañ nekk xale bu jigéen bi ku nekk gis na comportement bëggoon xaalis bëggoon problème kali bëgg lu baax am xol bu baax am xolu yërmande di ko jënd lekk di sonn ci ñëpp ku nekk xam na ne kali am ñaari jéegam namul dara aawam nekk fi nekk Indo ñaari lam nekk France su bëggoon jigéen ci kooku lay dem ngeen sosal ko tu kali guddi kali bëccëg yéen ngaa ngi leen kali wadd kali doomu jàmbur la day liggéeyal ni jaay Macky Sall bëgg ko dem ba jeex am na ñuy fay ay milliards li muy def kenn du ko def mu dem ba ñëw fi ñu sosal ko lépp nekkaat ay fen léegi nag bu war a dem xale xale bu jigéen bu war a dem moom mu bañ a dem mu dem ngeen jàpp naan dañ koy tëj Sénégal ñu waxante dëgg kali xale bu jigéen ëpp ko ay mboq ëpp ko ñu baax seen waa kër waxoon tekk noppi li ñu xam ak a bëri li ñu xam lii ak a bëri gaaw leen wax ci kan yi du du n'importe qui de Sénégal wax leen dëgg bàyyi leen soxore ak iñaar iñaari ku bëgg Macky Sall rek ngeen soxore ko kali Macky Sall la bëgg di ko liggéeyal sonn ci moom ngeen topp rek kali kali doomu jàmm mel yeen amoo leen ay doom ah bàyyi leen kali kali deful waxul bu fekkee nag yaayu xale bi boo xooloon sa comportement doom ni mu mel waroon nga rus sax di ko soutenir ci lii waral nga rus sax naan da koy jàppale ci lii nii mu mel ndax ñii lii suñu culture nga taxaw sa doom am 19 ans dem ay xaaju guddi nit yërëm ko may ko lekk nga taxaw naa di ko sosal te yépp yaa ko fekkee dóor nga sëriñ bi dóor na màtt na kali màttal ko ci ginnaaw waxoo leen loolu yéen daal koo leen bëgg rek beneen côté bi daal baax na beneen côté bi baaxul waaye yàlla mën ñëpp yàlla ñëpp la fi nekkal te Kaliphone mënul leen ko dara ñaanu waajur la am ak ñaanu seen waa kër ak ñaanu ay xaritam ak mbokkam koy xaar di nga xaati wax leen nag ci lii boo leen waxul ci lii fii ak lundi lii ñëw di ngeen tiit wasalaam. jërëjëf sama turando donc mu des sama gars yi frère am aussi boo xamante ne moom mi day ñëw réagir muy Moussa Papis donc ñu may ko mu wax ma posé ko ay question Papis maa ngi lay nuyu di